amis téléspectateurs salaamaaleykum dal leen ak euh, jàmm ci seen spécial euh, interview analyse euh, de l'actualité brûlante de la semaine comme ni ñu koy defee saa su ne ñu toog indi leen li nga xamante ne l'essentiel de l'actualité ñu commentaire ko waxtaan ko ngir mën a fexe ngeen jot li nga xamante ne mooy li nga xam mooy xew-xew xew ci Sénégal ñu ci ànd ak ki nga xamante ne Modou Seck à chaque fois muy sunu chroniqueur maison Modou Seck asalaamaaleykum. waaw aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mohamed maa ngi lay nuyu di la di di kërëm ñëpp di ziar ñëpp. Mhm. waaw di big up tous les followers et les internautes de la Mhm. Euh, merci euh, comme euh, ni ñu koy faral di defee saa su jot kon tey ñu ngi fi tay nak actualité bu bari na defe na ni li ñi tambalé moy le xew niki ki ci assemblée nationale ak commission d'enquête bi nga xamantene ne daanaka tàmbali na ak député yi defe na ni cool ma ngi ne xas assemblée nationale am Thierno Alassane Sall indil PDS Benno fële alors directement on va plonger dans le vif du sujet comment nan ngay analyser situation bobu nga xamantene mo fi nek ak li nga xamantene moy mooy commission d'enquête bi ak li ci ëmb li mu ëmb yépp waaw merci beaucoup ci laaj boobu mais foofu balaa may dugg en profondeur. Mhm. damay taxaw tuuti ci ki nga tudd muy Thierno Alassane Sall. absolument parce que xam nga Sénégalais yi du ñu jàngat. Mhm. Thierno Alassane Sall individu laay wax de. tout à fait et waxaguma homme politique. Mhm. mais Thierno Alassane dans le cadre professionnel. nommé nañ ko au niveau de l'ARTP. avec un salaire plus de vingt millions. si quand il est allé là-bas daf ne lii dafa bari. il a renoncé à ce salaire. nañ ko wàññi. deuxièmement bi mu demee pour signer ak Total il a refusé de signer. absolument parce que nee na lii contraire aux intérêts du Sénégal. démissionné wala poste ministre. démissionné ñi ne dañ koo dàq ak dañu démissionné. Mhm. de toute façon il n'a pas signé. absolument kon république des valeurs bi muy prôné nii. dañ koy mhm. gëm parce que doomu aadama buy buy posé ak da koy jàngat. absolument léegi nag. bu mhm. ñëwee ci sujet bi nga ma laaj nii. tout à fait. bon xam nga léegi bu fekkente ne Thierno. moom moo moom moo recours. absolument foofu la coow li commencé. léegi bi mu déposé recours. heureusement pour lui xaw ma pour le Sénégal sax laay wax. Mm-hmm, mm-hmm. conseil constitutionnel invalide candidature Karim parce que nee na jamono yi muy déposé dossier am. Mm-hmm. boobu français. absolument boobu mu ngi ak nationalité. waaw kon léegi double nationalité mënul am. absolument en tant candidat il a la pleine latitude. def loolu parce que constitution moo may. pour ñu bañ a violer suñuy sart. absolument c'est de bonne foi la ko jëlee. angle boobu lañ ko jëlee absolument léegi nag buñ nee nag dafa am corruption bu am. Mhm. corruption soo amee rek am na corrupteur. exact soo amee corruption. Uh-huh. am na corrupteur. Mhm. léegi kan mooy corrupteur. mais de là à jiiñ conseil constitutionnel de corruption également nekkul lu lu lu jéggi dayo ah c'est gravissime. Mhm. c'est gravissime parce que tamit. affaire yi man damay taxaw sax tuuti ci PDS quoi. absolument ñu ngi yàq patrimoine Ablaye Wade. waaw. man loolu laay gis parce que man dama leen di jàngat biñ perdre pouvoir ba léegi. Mhm. dañ dem élection deux mille législative deux mille ñu coaliser ñoom Khalifa ñoom Idriss Seck. bu mhm. ñu def nga namal coalition pour xeex Macky Sall. waa PDS ñoo ko mhm. parce que dañ dem ba biir boobu Khalifa moo waroon nekk tëdd Omar Sarr bi moo ci opposé wu. Omar Sarr bi nekk ministre yi. bi noonu la yàqoo. ba Macky jël majorité bi. au niveau de l' assemblée. tout ñu ñëw ba deux mille dix neuf aussi même chose. ñu dem ñu kale ko waxoon naa la pas c' est pas normal PDS ñuy def ñaari élection présidentielle mais surtout loolu parce que foofu dinañ ci taxaw parti bu mel ni PDS yaa ngi wax patrimoine mais absolument tey dafa mel ni PDS euh, dafa niroog euh, ni euh, moom existé tul mu ngi ci tànk tur bee fi nekk rek mu ci tànk yooyu parce que su ma continuer pour avant may dugg sa laaj mhm. bi ñëwee ba tamit

da wax li fi nekk rek. Mhm. PDS mënul am 27 députés yi moom xaw ma ñaata 27 la am. xaw ma mënu woon am bu doon moom kese dem. parce que local yi amuloon maire yu bari. Mhm. local ñaari maire laa xam man. peut-être mhm. am na ñeneen. 400000 voix lañ am local yi. absolument. bi yeewi ñëwee ñu def intercoalition moo ko may député mais biñ demee ba dem ba assemblée. ils ont tourné le yeewi. lu ñuy indi lu majorité indi ñu voté ko. PDS boo xam ne muy joué quoi. léegi nag loolu noonu eh, patrimoine boobu may ñu ngi ko yàq. Mm-hmm. foofu laa yem ci PDS. léegi nag su ma ñëwee ci àll kale ji muy li xew nii démb. Mm-hmm. c'est gravissime. Mm-hmm. lu tax c'est gravissime parce que. Euh, outrage à magistrat. laa ko xam nga li outrage la. tey outrage la. Bassirou Diomaye Faye li ko jàpp. dafa dugg Facebook. publier wax ci magistrat yi. ñu fekk ko këram yóbbu ko. heureusement que Cheikh Ndiaye. Mhm. Cheikh Ndiaye waaw le le juge constitutionnel porté na plainte. exactement te bu commission d'enquête parlementaire dégg naa porté plainte affaire bi dara day day arrêté. absolument procédure bi dafa wara a arrêté. parce mhm. que les porte na plainte. Mhm. bon xamna naa juriste yi nañ ci gëna wonu dug. a dugg. mais dal ci gattal ci tënk. pour bañ a monopoliser temps bi. lii ni ñu def nii. c' est gravissime. Té histoire na ko retenir. mais ak li kan la kan la arranger? mais foofu laa jëm mooy euh, balaa may yegg sax ci kan la arrangé ñu gis ni euh, am na commission d' yoo xam ni jiitu na ci table président assemblée mosuñu see yee yàbbi am na commission d' enquête ñu fi doon wax ni dañ ko war a yëkkati ci euh, fonds Covid yi. mu dafa mujjee naax saay am na euh, commission d'enquête ci li nga xamante moo nekkoon problème Mame Mbaye Niang bi ñu doon wax dafa naax saay alors bii ñu wax ko ñu ne dañ ko def en mode fast track est-ce que aussi loolu mënuñu ñoo jàpp ni euh, dafa am ay motivation derrière wala. ah waaw tout à fait parce que xam nga boo gisee li nga wax nii et même sax am na beneen sax boo xam ne defoon nañ ko fi par rapport ak suñu soldats yi gaañu woon. Mhm. moom c' est plus lointain dans du temps de Diouf. absolument soldats yi demoon Kébé. Uh-huh. mais Guy commission d' parlementaire. Mhm. ak Covid bi nga wax. Mhm. ak affaire euh, Mame Mbaye Niang bi. benn lañ fi bàyyi mu jàll. ba léegi mooy affaire kii bi. 94 milliards yi. te dañ dem ba à la fin ne li Sonko wax ñoom en tant parlementaire. ñoo ñoo nekk foofu. kon li nga wax noonu li muy dëggal mooy lan moo tax ñu yàkkamti ni processus bi mu ngi dem. élection yi pour bientôt. Karim kale nañ ko. il n'a qu'à se ranger. Mm-hmm. il se permet de faire un tweet depuis fallait on a gagné, il reste à repousser les élections. Mm-hmm. Bon, une seule personne dit manipuler tout un parti, quoi. Mandal, vraiment, PDS, mm-hmm. je ne comprends plus, quoi. On dirait que Karine est le seul leader, faut, faut, faut, Mais là, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, qui gens là, Macky Sall, sortez même tamit. Je peux le comprendre. Parce que Daphné, député, il y a un député ils député après députés à faire, mais booy demee bañ naan ay motion de censure ay reporter élection objectif bi lan la woon. Hmm. du dañ ne dafa am corruption. mais nañ leeral loolu moo gën. tout à fait ñu ñu yem foofu. Hmm. procédure bi pour six mois la. Hmm. na ko topp te attention de conseil constitutionnel sept sages la. ils sont sept non. absolument dañuy def chiffre pour bañ bu toolee. majorité bi remporté absolument léegi ñaari magistrat la ñu wax. Cheikh Tidiane Coulibaly ak Cheikh Ndiaye. ñoom ñaar la ñu desul cinq. léegi cinq yi des. kon corrompre ñu leen. Mhm. lan moo tax kon bàyyi ñu Karim Wade jàll. Mhm. il faut réfléchir quoi. dañ ne Karim jàllul parce que dañ leen a pour ñu mhm. téye mais ñaar lañ si te ñëw. cinq yi des na kon. Mais est-ce que aussi c'est pas fait à dessein pour être nous repousser les élections je sais pas ben de partir. parce qu'on a comme l'impression que euh, ñu koy le fait de de de ne pas report des élections malgré que on est à quelques jours de de de la présidentielle euh, normalement tout doit être en place voilà alors ñi ngi mettre en œuvre affaire pour mettre en place mais est-ce que réellement muy ñaari ante opposition comme pouvoir pare nañ pour dem élection. ah ñoom ñu ngi souligner ay article cinquante deux quoi. Mhm. foo xam ne fu fa toll crise des gestions ah, le président am na prérogative. Mhm. am sañ-sañ euh, jëlaat pouvoir yëpp téye ko ci loxo. absolument ñu ngi koy agité. Mhm. foofu nag man j'interpelle directement le président. absolument parce que xam nga mu ñëw posoom réer baaxul. Macky Sall franchement Sénégal deselu ko dara. Sénégal fi la jànge fi la amee diplôme. fii la liggéey fii lañ ko nommé yëpp. fii lañ ko fale ñaari yoon. kon Sénégal desalatu ko dara quoi. Mm-hmm. na génn génn bu rafet. mais est-ce que tey na arrêté lii est-ce que tey ñi ko wër. Euh, c'est ni ngi koy rendre un un bon service buñ koy forcer ci peut-être je sais pas ndax dañ koy forcer ou pas mais en tout cas ci débat bi nga xamné ne ñu koy polier l'atmosphère est-ce que c'est rendre un bon service ak nga xam moy président bi nga xamantene ne dafa war par la grande porte ñu saluer euh, son discours euh, bi ñu doon wax ni bi mu renoncer à sa troisième candidature tay ñuy wax ni non nañ toga dañuy repousser élection est-ce que tay lolu ñu ngi koy rendre service. ah non rendre ñu ko service moy li ma la wax parce que mom way warul mujj pousser bu réer quoi. Hum, hum, hum. xam nga bu fekkente ni yàlla defal na le teraanga. Macky Sall le président Macky Sall mënatul am lu gën a rëy li mu am Sénégal. Hmm. il doit être au-dessus la mêlée. vraiment il doit siffler la fin de la récréation. parce hmm. que lii vraiment démb boo xoolee Mame Diarra Fam ni mu doon agité ci Thierno te nee na il va porter plainte. parce que dañ ko agressé. Hmm. dafa ñaaw quoi. looloo nekkoon sama projet sama ñaaw ba léegi yow boo fàttalikoo fii lañ ne wala magistrature bi Sonko da leen di saaga opposition bi dañuy saaga magistrat dañuy kii. Euh, force reste à la mhm. léegi léegi nag au contraire moo am. Mhm. imaginer léegi PDS def alliance ak APR ñuy dénigrer ay magistrats. Mhm. Sonko am ñaari yoon décision de justice ñu jalgati ko. léegi l'effet contraire moo am ñoom lañ doon wax Sonko. naan respecté wu magistrat yi ñoom léegi dab na leen. vraiment c'est dommage mais c'est malheureux quoi. Mhm. c'est malheureux. dañuy toogaat ba léegi assemblée euh, monsieur sec waxtaan ci li nga xamantene mo fa am ñu gis ni législature bi mom ñu bari ñu koy joxoon baaraamu tuuma ci nekkin bi ci comportement wu li nga xam moy député yi euh, du am session te xex amu fa wala xulu wala ay kàddu yu virulent wala ay euh, teesanteeg yu ni mel est-ce que tay ñi nga xam ne ñoo teewal askan wi ci penc ndaw réew mi noonu mu war a nekk seen taxawaay ak nan ngay juger législature bi nga xamantene ñoo porté la voix du peuple fële ci assemblée. waaw xam nga Sénégal moom léegi bu ñuy def politique. Hmm. surtout assemblée c' est un boo xam ne dañuy soxla ñoo xam ne ay belliqueux lañ. absolument. bon du ma leen citer sax. Hmm. pour may leen importance mais am na ñoo xam ne ña nga assemblée seen mérite moo du leen loolu saaga. invective hmm. xase. te benn camp rek la nee amuy affaire. waaw léegi booy xool euh, gars yi siise bu ñu indi foofu. doo wax doo argumenté. nañ la saaga wax la sa démb mais Thierno démb il a fallu sax dañ ko extirper. absolument mais au dañ ko doon éliminer. Mm. dañ ko doon agressé. yow doo wax doo def dara léegi nag bon comme am na benn tembo bu am 82 kii am 83 day am agitation bon léegi nag dem na ba nga xam ne franchement lañ lañ doon seetu gisuñu ko. Mm. parce que dañu bëggoon vraiment député de qualité. Mm. mais nag niñ leen di tànnee la. niñ leen di tànnee parce que ci parti la copinage la pilotage taf yëngal jël kenn kuy mën lii nga jël profil bi booy xool Farba Ngom avec son équipe ñooy def loolu. Hmm. xoolal assemblée configuration bi. Hmm. Farba Ngom ñi muy toogal. il faut faire la réflexion. mais aussi euh, gis nañu ku si mel ni Guy Marius Sagna euh, à ses débuts xëy na sax mën nañ gis ni am na accalmie mais moom it à ses débuts euh, bokkoon na ci ñi gën a virulent ci assemblée nationale également. waaw virulent ci discours. Hmm. nga argumenté ko. moo gën ngay saaga moom mosul saaga peut image bi ñu gis mooy. kees gi ñu yëkkati kees gi. waaw fokkati micro bi également. voilà te non sax baat bi jaaw mhm. moom moo yëkkati kees gi. mais loolu loolu c'est parce que dañ doon voté loo xam ne. Mhm. vice président assemblée lañ doon voté. Mhm. ñoom ñu gis ne dañoo jalgay charte yi mu ne fii kenn du voté. loolu la quoi mais je pense que dañ koy sax ñaawlu parce que loolu rafetul. Mhm. mais je pense que kii ko ne ay intervention mhm. da ngay xam il est pertinent. Mhm. waaw il pose beaucoup de questions pertinentes mise bu fa ñëw na la sukkooy. pour xam parce que pencu ndaw réew lañ wax. absolument ñun lañ fa nekkal. tout à fait su ko defee nañuy yëkkati débat mais bon c' est pas aussi grave parce que buñ demee présidentiel. assemblée bi day tas. à coup bu tasee beneen reconfiguration dina xam. Mm-hmm. peut-être dañuy am des hommes à la hauteur et des mm-hmm. pour ñu vraiment def seen liggéey comme ni mu absolument alors euh, monsieur Seck balaa ñuy génn assemblée aussi euh, ci toujours con même siège bi euh, dina am naa yéen a la lan mooy le tort de Karim. parce que au départ on parlait de milliards quatre mille milliards quatre cent et quelques milliards ba cent quatre vingt dix milliards comme cent trente-sept milliards tey on nous parle de pour mu mën a bokk wala mu bañ a mën a bokk alors foofu li lay laaj mooy euh, lan mooy tooru Karim ci euh, processus bi tey ba tax réellement ñu mun koo sepp ci élection yi lan la. waaw xam nga bu dee da nga jël candidature 2019. Mm-hmm. affaire boobu la woon quoi. moo Khalifa Sall ñoo bokkoon parce que moo ci moo ci dugal électeur. Mm-hmm. parce que ko kepp leen. moom xalifa yëpp. Mhm. ba pare même bu jàlloon moom il nous doit de l' argent. waxoon naa la mhm. keroog. Mhm. waxoon naa keroog exactement. parce que justice boo tranché ne amel nañu xaalis quoi. léegi nag bii nag bii nii bii. pour man dafa yéex a jóg. parce que bi bi le premier ministre di def décret fekk na dossier bi dugg na conseil constitutionnel. foofu tamit conseil constitutionnel comprendre ma leen ko wax parce que dañ ne Karim Wade. bi muy indi. ne ne ne kii na quoi il a renoncé à sa candidature française uh-huh. à sa nationalité uh-huh. boo fekk na dossier dugg ba pare kon loolu du rétroactif loolu la ñu wax uh-huh. léegi Sonko dossier moo njëkk décision Mame Mbaye Niang xaw ma xam yaa ngi comprendre parce que Ousmane Sonko dossier moo njëkk décision Mame Mbaye Niang bi Cour suprême dëggal kon loolu tamit rétroactivité daawoo dafa war a wala wala foofu moo tax ñoom man sax ci gis nga guerre bi leen je veux que la lumière soit faite. absolument parce que tamit bon député bu fi defee dara dañuy ubbi malaanu kër laayam. Mhm. tëj ko. absolument gis nañ ko fi quoi. Mhm. wala bu dee bu dee un ministre dañ daan dem wër cour de justice. tout à fait moom lañ fa àccee Idriss Seck. absolument sauf que nag Macky Sall moom amul benn ministre bu ñu inquiété ci régime am. pendant les douze ans qu'il a fait là. Mhm. te les scandales ne manquent pas. peut-être que dañoo deful dara. non mais après naaj naaj toon euh, bàyyi ma yëgal sow <laughs> <laughs> léegi euh. bu ñu ñëwee ba lii am mm. ñoom aussi mm. war nañ mën a xool benn juridiction boo xam ne dañuy mm. summi seen ñu leeral lii exact parce que lii dafa garaaw quoi tout à fait voilà tout te am na communiqué bu EMS def mm-hmm. di solidaire ak ñoom bien sûr même sept membres def nañ communiqué absolument parce que solidarité ak ñoom léegi day am ñaari échelon yoo xam ne te maa ngi dégg démb Abdou Mbow naan su fekkente ni li aboutirul ñoom ëllëg député bu fi ñëw tamit du ñu ub du ñu ubbi malaa kirlaayam mhm. pour ñu pour ñu atte ko. te loolu. ni le doit être au-dessus de la loi. absolument su fekkente ni lu am la na lumière bi def je ne sais pas PDS bu dee am na preuve. Mhm. mais na ko teg table. absolument flagrant délit moom su amee moom. maa ngi dégg ñu am nañu ay audio ay kenn xam mais je ne pense pas. est ce que est ce que c' est politique quoi. est ce que c' est politique parce que ñoom seen intérêt mooy élection parce que bokkuñu. Macky Sall aussi quoi que l'on puisse dire. lii ça vise Amadou Ba. waaw booy mais booy xalaat loolu ngay gis parce que Amadou Ba il a été candidat il est candidat de mais ñu dem di ko viser te Karim bi mu tuye moom la attaqué direct. soo tweet la moom la attaqué direct Amadou Ba. mais mais mais foofu ñu ak gis nga ay politique yi. Hmm. ñii mais mais mais foofu noonu. dañuy euh, fooy askan wi quoi. day tax ñu dugg ci politique carrément waxtaan ci li nga xam mooy élection présidentielle yi euh, wax nga ko Amadou Ba. Le, le, choix du président Macky Sall mais très contesté même au sein de de benn loolu aussi malgré que gis nañu euh, ci staff de campagne am le président Macky Sall yor ci commission euh, stratégie ànd si ñu mag ñëpp ñu mel ay Moustapha Niasse ak ñooñu mais sinon euh, comment tu comprends qu'il soit contesté à ce point là parce que même fii dans des groupes à Thiès man gis naa ñoo xam dañ ko contesté donc pourquoi ça. waaw xam nga léegi problème de choix la. nee nañ kii choisir élimine. Mhm. Mhm. te booy def étude comparative bi entre euh, xam nga bipolarisation bi Macky mag di bañ moo am. Mhm. moom ak Ousmane Sonko. kenn mënu ko daw xam nga lu tax. Sonko dafa joxoñ est-ce que dégg nga fa contestation. Mm-hmm. pourtant amul décret amul dara. Mm-hmm. ñëpp rangé wu. Mm-hmm. Macky joxoñ ñaataa génn affaire. ils sont trois non. absolument Mame Boye. Bounam de la Mohamed Boun ak Aly Ngouille. Aly Ngouille. ah. sans nag ñi nga xam ne. même Abdoulaye Daouda Diallo dellu si waat. mu dellu si ñu ngi ci biir. léegi choix la def. choix bi nag qui choisit élimine. loolu lépp xam nga lu ko waral. il a mal réagi il a il a il a réagi tardivement. Hmm. Macky hmm. depuis bi mu amee deuxième mandat. Hmm. le lendemain mais dafa ñëw rek supprimer ku eh, kii poste premier ministre. rappelez-vous absolument lu kenn xaaru lool waxu ko campagne waxu ko dara dafa gagné deuxième kengam deuxième mandat rek supprimer primature carrément. est-ce que du loolu moo gën a sax jafeel waaw moo gën finalement moo ñu jural. xam nga li ma hmm. instant aussi nit da ngay jël say devant. Hmm. yow xam nga ne pare nga dootoo defaat. mais commencé ngay manœuvrer au o de votre parti ou au sein de coalition ngeen xool. Hmm. comment waa ji def deux ans trois ans cinq ans ba nga imprégné ñëpp. mais xëy le 4 juillet la après quelque temps te balaa ñu doon def sax nomination bi rappelé wu. am na coow lu bari lu ci amoon suspense bi ñu garder ko garder ko ba à la fin il a lâché le morceau bon Amadou malheureux mu malheureusement pour lui amul soutien à 100% mais est-ce que tay le président Macky Sall wax naa la ko euh, groupe bi nga xam euh, cabinet de campagne bu Amadou mais supposons entre guillemets ah, si le président si ne gagne pas ces élections est-ce que du une défaite aussi pour le président Macky parce que mon, mo mo mo, ci stratégie un président sortant bu un candidat yóbbu euh, gagné ou aussi ça va faire tilt. non xam nga yow booy su fekkee ne yaa ngi remarqué Macky Sall dem na fi ubbi BRT a ak Guédiawaye. Mm-hmm. Amadou Ba nekk foon. si te pourtant il était ici au Sénégal. Mm-hmm. dem na Saint-Louis. si Macky Sall. Mm-hmm. àndul ak Amadou il était ici. te dégg naa sax conseil des ministres ba ne pas sax teewul. il était dans les ay Tamba yooyu di def tournée. absolument xam nga da ngay am na benn distance bu commencé am ci ñoom. dafa commencé jël son indépendance. Amadou Ba est-ce que commencé wul di manœuvrer. Hmm. waaw parce que vraiment mu ngi teg ñoo xam ne ay nitam lañ. Hmm. waaw parce que nit aussi ko amul ci yow confiance doo ko loo ko jël. absolument léegi nag directoire de campagne yi. et boobu mu teg Macky xam naa pour sagal ko la waaw man loolu laa jàpp parce que yaakaaruma ne mag ay stratégie yooyu. Mhm. je ne pense pas. Mhm. waaw du lu sincère ci man. Mhm. waaw mais xam na Sénégal il a fait deux fois le tour du Sénégal jiite réew mi pendant douze ans je pense que euh, tey cartographie politique du Sénégal da ko ci loxoom euh, mu am quelqu'un comme moom aussi dina am solo wala. waaw mais xam nga Macky Sall tamit bu fekkente ne am na li nga wax fii yëpp tamit. élire Amadou Ba. Hmm? presque rek nga ne troisième mandat Macky Sall. absolument parce que day dagan. te gars yi dañu bañ troisième mandat. Mm-hmm. mais il a droit de l'accompagner quitte à ce que sax mu nekk directeur de campagne. Mm-hmm. su ko neexee. Mm-hmm. parce que c' est pour mu gagner camp c' son droit le plus absolu. mais lu mën am rek Amadou Ba daal vraiment il est un peu orphelin quoi. il est un peu orphelin au sein de l'APR quoi. waaw euh, dañuy wax ci beneen candidat mooy da wax léegi danga nga ne euh, dafa am dualité au sein de Benno. wala di candidat bi nga xam ni mooy mooy jiite bennoo bi léegi ndax mën nañ wax ni euh, maanaam la bataille entre Macky Sall Ousmane Sonko mooy nekk une bataille par procuration entre Diomaye ak ki nga xamante ne mooy Amadou Ba ci campagne bi. ah loolu kañ c'est évident loolu kañ c'est évident. Hmm. c'est très évident même parce que waxoon naa la ko de système la ak anti système la. Hmm. mooy ñëwaat rek. parce que configuration boo mën di jël. Mm-hmm. loolu la lay jox peut-être ak troisième pôle bi mooy ñi ma la waxoon. Mm-hmm. mais bu dul loolu. Mm-hmm. loolu moo am référendum la. élection yi su amee. référendum lay doon. mais président euh, Seck man dafa am loo xamante ni dafay traduire sama esprit mooy Diomaye il est en prison pour le moment ñi ngi wax ci temps d'antenne yi nan la war a demee ci campagne bi et tout ça. mais man damay dem au-delà balaa may ñëwaat mooy supposons ba léegi dañ nekk ci ay hypothèses euh, Bassirou Diomaye gagne les élections war a def passation de war a génnee euh, nungu siin ngir def ak euh, passation de ak ki nga xamante ne mooy euh, la président Macky Sall loolu aussi dina nekk lu inédit ci Sénégal nit jóge ca kaso ñëw di weccoo ndombal tànk ak président bi fi bii génn. ah démb ñoom xam nga les recalés là bi ñu demee palais. Mm-hmm. seen tappale yooyu tamit ñoom di di mbubuwaale Bassirou quoi. Mm-hmm. naan ñu ko doon sax ñu bàyyi Mhm. ba Macky Sall ne leen su avocat am defee demande leen provisoire procureur du ci opposé wu. Mhm. def na mais Maham Diallo moo bañ. Mhm. xaw ma xam yéen ngeen ko déet. si démb démb démb la décision bi génn ils ont fait une demande de liberté provisoire Mamadou Maham Diallo juge di ñett. kon du génn. bo ba fi ñuy wax ni léegi nag yow li nga wax su amee. gis nga su amee mu gagné. par extraordinaire deful campagne deful dara mu gagné te attention de Diomaye nekk en prison moo gën a dangereux sax ci ah mais amul peut être bon dina am ay temps. xam nga lu tax demul marketing la oh RTS yow ak internet bi yow booy passif yi xanaa gisoo leen ni mel ci réseau te am nañ équipe de campagne ils ont les moyens. bàyyi joomaay génn moo gënoon sedd sax ci pouvoir bi ka mu nekk prison. parce que Mohamed. ñaata détenu politique moo am. on parle de mille non. mille bu ku famille. amoon cousin. Mm. amoo sët amoon maam amoo nijaay amoo mbaay. Mm. ñooñu nañu waral parti au pouvoir. Mm. fait le calcul mille ak seen nombre de parents yi am. booleeg joomaay les sénégalais bëggul insiste day sot bàyyi woon ko mu génn. mu nekk ak ñëpp. mooy tane sax nga bàyyi ko ci nguur su boobaa tamit bu gañee comme li wax. Hmm. mais dañuy ñëw jël si ko directement parce que am na beneen statut. Hmm. charge buñ ko mënoon di top day daanu day day absolument. day nërmeelu je pense que Barthélemy dund na lu mel noonu. donc euh, loolu moom c'est c'est pas inédit. xam sax législative. législative la waaw mais kii présidentielle la. Hmm. bii bii nii moo gën a garaaw. parce que comme li nga wax ñëpp mais et puis deru Sénégal day xaw a yàqu sax. un prisonnier boo xam ne candidat la quoi. Mhm. anam mu ngi prison deful sax campagne parce que ñu ko téye. Mhm. dafa ñaaw. ba tey ñu des ci siège boobu Diomaye Faye gagne les élections de deux mille vingt quatre nan la war def Sonko da koy bàyyi ci kaso bi parce que dafa am ay charges yu féete ci moom la ko war a génne. non mais c' évident que da koy génne. léegi mu am son numéro un. est-ce que foofu aussi du am euh, benn bipolarité parce que ñepp xam nañ ni c'est Sonko moy euh, le leader la tête pensante de de ex-Pastef euh, da koy même bu ko légui euh dina am jurisprudence coow dina bari mom day démissionner après pour ñu organiser ay élections ban ban non en configuration bi dina bu compliqué dina am foofu. waaw xam nga chef d'inculpation yi ñu tek Bassirou. Mm-hmm. xam xam nga ne moom lañ teg Sonko. Mm-hmm. à part sàcc et téléphone bi ñu doon wax. absolument ñoo bokk chef d'inculpation. Mm-hmm. ah mais ñu bàyyi xel ni que bon ci le cas Adji Sarr wax nañ corruption de mineur ba léegi nii loolu tamit élucidé guñ ko carrément. ah waaw mu ngi noonu. léegi nag léegi xam nga loolu moom su boobaa. bu jëlee réew mi. hypothèse la ñuy wax. si le président xam nga ne da génne. de facto. mais Sonko dafa am lu mu def loo xam ne man xam naa ne li waa Pastef naan.

te bu mu la bett ay vidéo génn pour yooyu de. Mhm. ils ont tout calculé. Mhm. suñu kawam mhm. météo politique. absolument mais ne daal Sonko. on a parlé des deux candidats balaa ñu def transition dañuy wax comme ni ko waxee dañu waxoon ni sax dinañ def euh, chaque semaine ñu indil les euh, li nga xam mooy camp euh, candidats yi dinañ ci ñëw ci campagne bi mais bu ñu xoolee ba léegi nii la campagne électorale dina démarrer samedi. alors bu légui ni c'est le calme plat à part quelques ñu ñi dégg ñoo xam ñi ci terrain bi mais je pense que comme nous ko waxee léegi nii élection bi ñi koy centraliser peut-être ce sera les deux camps ci suñu euh, euh, le camp de Diomaye Parsi ak le camp de euh, de de Benno sinon ñi ci des ban rôle la ñu jouer concrètement ci campagne bi nga xam ne ci lañ jëm. Wa xam nga bu fekkente ni chance ngay ngay répartir a répartir -hmm. di nga xol ne. ku mel ne par exemple Idrissa Seck. Mhm. am na quatre présidentielles yu mu bokk. am na tuuti expérience politique. xam mhm. na Sénégal am na am na expérience. xam naa ne dina dina ñëw. Hmm. parce que aussi il a commis beaucoup d'erreurs il est en train de de mettre ah. sur pas tout ce qu'on lui souhaite hmm. c'est vraiment bii moom bu ko ah, la c' est la ah, quoi. Hmm. Khalifa Sall bon aussi aux yeux de beaucoup de Sénégalais. il a trahi. les mots là. dans leur sens. bët boobu lañ koy te xam naa ne loolu dina ko topp. mais calme Barthélemy Dias boobu ba léegi nii noo koy jàngatee. non mais Barthélemy Dias ci la yàqal Khalifa Sall ci la bokk Barthélemy Dias il ne communique pas bien. mais est-ce que nekkul dafay liggéey pour euh, lu leen lu leen jox victoire. parce que n'oubliez pas que mi ngi mairie Dakar am appareil bu toog également. waaw baax na waaw waaw léegi loolu mu ngi suñu kanam mais je ne pense am lu bari de. mais mhm. xam nga lu tax. Mhm. daa am lu fi jaar. Mhm. xam nga yeewi askan wi. dafa susciter beaucoup d' espoir Mohamed au sein des Sénégalais. Mhm. c' est pas évident ñu jël grande ville yëpp locales yi. Mhm. ñu dem Témbo gars yi assemblée. loolu kan moo leen ko jox. Mhm. quatre députés ñu am mais askan wi leen ko jox parce que lu waraloon jox leen ko. exact xam nga nit eh, da ngay cohérent. il faut être conséquent. da ngay am objectif nga ne lii laa gëm nga gëm. d' accord il a le droit dem ay ndaje ay waxtaan ak Macky Sall naa bokk rek mais aussi. Sonko dañ ko xaw a jàmpaaka hmm. waaw kilo poids. mais ñoom est-ce que aussi raison am na foo xam bu fa tollee dañuy euh, dem waxtaan pour mën a teg li nga xamante ne mooy seen avenir. ah xam nga day au au sein dañ ne local ñooy ànd législative ñooy ànd présidentielle. ku dem loolu hmm. mais dafa am loo xam ne dafa ñaaw. Hmm. xam nga lu tax xam nga bu fekkee ne da ngaa nekk say nawle. même booy def benn affaire tamit na ci diisoo ak ñoom. parce que Sonko mënuñu jël ay militant yëpp ñu tëj leen. muy dem di négocier ak Macky Sall quoi. Ah, il faut qu'on se dise la vérité quoi. Mm-hmm. su boobaa sax ñi ñooñu ñu tëj dinañ bàyyi Sonko. Mm-hmm. dañ ne mais kii ñun on s'est battu pour lui et il ose aller s'asseoir avec le président di négocier moom. mais contradiction du am foofu parce que man je me dis que peut-être bu demoon ci euh, négociation yi je euh, sais doon na mën a peut-être teg le cas de ces euh, ñi nga xam ni les détenus politiques comme vous les appelez pour ñu mën a xool lan lañ mu def pour libérer leen wala. waaw léegi ñoom ñi demoon ci dialogue Macky Sall bi ala Karim Wade. Mm-hmm. gars yi téyewuñu ko. absolument. xam nga dem dem dialogue évident wul di. tout à fait. gis nga les recalés là. Mm-hmm. est-ce que gis nga ci Bougane. ñu mooy ñu demoon palais. gis nga Abdourahmane Diouf. Mm-hmm. gis nga Mimi Touré. instant yi toog ak Macky un peu suicidaire politiquement parlant. parce que nit ñi dañ lay xoolee bëtu théâtre yi. xam nga nit doo wax benn affaire di ko wax di ko wax di ko wax ba ñëpp jàppale ni nga gëm. nga wëlbatiku def le contraire. absolument moo tax idée bi ma lay wax sànq. Hmm. politiquement parlant da lay rey. Hmm. te Sonko aussi condition bi mu tegoon c' est valable. Hmm. daanaka nañ man mënuma ñu leen ñu tëye samay nit may dem di jokkase di négocier. dañ leen ba pare. may doo ko a dem négocier. tey il avait vu juste parce que gis nga Karim bi demoon. mu ngi nii jàll. alors Karim mom defe naa ni euh, ni ñu ko waxé double nationalité mom mënoo kam di bokk parce que lolu charte ndey rémi mi wax et je pense que euh, bu ñu xoolee li nga xamantene mom lañu wax bon ñu ngi ci euh, commission d'enquête on verra ce que adviendra mais en tout cas il est avéré que peut-être bi bind ki bi requête bi bi premier ministre di rejeter le truc là mom dossier dugg na ba pare donc koko mom je pense que day nek un fait avéré maintenant balaa ngay tuuti laaj ci. on y va mais Karim Wade est-ce que bëgg na di jiite Sénégal xam nga tamit. non ah mais si gis naa fi mu indi fa ay oto ne woon day gis naa ko. nit ñi di waajal. xam nga il faut venir prendre la température mais yow yow ak une semaine ak ah, yow yow tu n'as même pas foulé la sol du Sénégal. nga ne da bëgg jiite réew mi quoi. mais damaa gis bu ñu génnee tur Sénégal euh, fee ca RD Congo Philippe Tshisekedi bi muy gagné. Euh, dafa nekkoon ci biti ci biti la gagné doo ko ñëw. non bokkul alors que dañ ko ex dañ ko génne woon dëkk bi mu. exilé woon mhm. non bokkul. xam nga lan moo tax bokkul. Mhm. kii contexte bi dafa particulier. absolument dañu laay jiñ xaalis. Mhm. te ba pare ñoom dañoo def wax waxeet waa PDS. Karim luñ doon wax. Euh, soxlawul grâce. Mhm. nañu réviser kii am. absolument procès tout à fait c'est ce du grâce lañ may. ah l'occasion fait comme bëgg ah. nañoo bokk bëgg nañ ah. bokk. peut-être tous les moyens sont bons on est en politique. da ngay gëm gëm man daal kan. damay dégg gars yi on est permis. Ah, d'accord moi loolu nag day day. absolument gis nga avec la nouvelle génération Mohamed maa la ko wax fii tey. Mhm. fii ngay weex wala ma ñuul léegi. absolument les coups bas, substituts, yooyu. Hmm. day jeex. tout à fait sinon le peuple est plus exigeant maintenant. absolument la jeunesse là mooy li ma la waxoon 2000 hmm. bi Ablaye Wade di fal ñooy ñoom ñooy voté ni exact booy dañuy exigeant. tout à fait te loolu vraiment son joué na ci partition bu exact parce que tamit une eh, politique bi def vraiment. Hmm. waaw c' un peu démodé quoi. très bien te li ma la wax mu ngi suñu kanam. ku deful lu leer doo am dara. exact waaw léegi nag yeneen candidats yi peut-être sëriñ bu il peut être euh, dina am bénéfice su daara mhm. peut-être ak euh, le monde des affaires. Mhm. moo Anta Babacar. voilà ñu ngi noonu bon kan moo ci desaat gros morceau yi. Mhm. peut-être ay gàkku ñooñu dañuy colmater. colmater bon Abdourah Abdourahmane bokkul. kii Boubacar dina am dara pur nag. pur man je crois. ñu bàyyi leen fenn ah Cheikh lañ doon def candidat. parce que vraiment moo ne woon Yewwi. tout à fait moom la nit ñi xam. Mhm. mais Aline Diaby. man xaw ma exactement mais nag PUR dañoo yor ñoom euh, waaw mais la ñuy wax dañoo appareil mais la personne la personne am solo. absolument parce que Cheikh Tidiane bi impré woon ñëpp. tout à fait tout à fait exactement moom la ñuy teg. nekkoon na fa sax président waaw. newoon na seen président bi xam ne chaque année dañ koy renouveler ku na ba jël bi vraiment imprégné wu na ci yeewi hmm. te ku pondéré la moom man daal moom laa gënoon a xam foogoon naa moom la ñu tabb quoi mais nag ils ont leur raison waaye ñu tabb tamit ñu ngi koy souhaiter bonne chance mais ñoom dañu am appareil pur moom am nañ appareil te ils vraiment organisés tout à fait hmm. pur moom c'est un grand parti boo ne structuré na hmm. te ñoom aussi dañu conséquent absolument te gis nga démb ñoom doo nga voté wul affaire bi ñoo ko waa discipliné. absolument ah, tey ñëpp xam nañ ni ñoom. ils sont dans l'opposition. absolument Pire moom mën na am chance quoi. Mm-hmm. encourager vraiment. Mm-hmm. électorat bu xaw a takku. Mm-hmm. Euh, loolu dinañ ci ñëwaat incha allah bu yaatoo yaatu euh, ci li nga xam mooy campagne bi nga xam day démarrer euh, déjà le samedi mën a yaatal bu baax ci la la chance de des candidats mais également waxtaan ci campagne bi son déroulé et tout mais monsieur Seck balaa ñoo daaneel dañuy waxtaan. Euh, euh, une question géopolitique parce que dans nous pays, nous trois le Mali le Burkina et le Niger Nous euh, trois pays c'est ay dëkk la Nous bi euh ñu malgré que après euh, CDAO bind nañu un communiqué pour démentir le numéro parce que ci texte yi on nous dit que la CDAO pour nga quitter ko il te faut que pays bu ko bëgg quitter da koy notifier un an avant wax ni que euh, dama bëgg gën ba paré euh du tere charte CDAO tek teg euh, ci année boobu année boobu da koy top ba paré ba ñu notifier le ce ce génn alors la question bi ma lay wax réellement ban impact réellement le génnu trois dëkk yoy di def ci CEDEAO buñ génnoon. waaw mais loolu nag waroon nekk surprise ah. parce que vraiment gis nga ñetti dëkk yooyu ni ñu mel quoi. Mhm. solidaire àndandoo dàq France bon entre guillemets quoi. Mhm. dàq France xam nga vraiment commencé jël seen intérêt seen seen propre mais seen dessin en main. ba pare so gis nga euh, France Afrique. mooy deewi. wala rek ñu xoolaat ko rek. te ñetti dëkk yooyu particularité bi ñu am dañ jege Poutine. seetlu bu baax li ma la gis nga Mali Wagner a nga fa. c'est la Russie. Mhm. voilà dàq nañ français yi bon Niger dàq nañ français yi. Mhm. entre guillemets dàq mooy bon jéem a xoolaat seen intérêt ñoom. Mhm. gis nga te boo xoo gis nga boo duggee ci CEDEAO. quatre pays yëpp suspendu lañ def. tout à fait. mooy ñi fi am jeune mooy ñetti absolument parce que mooy mooy mooy. Euh, échange teg nañ leen xam nga. dafa am lu ñu naan coup d' militaire. moom lañ def. mais am na coup d' boo xam ne c' civil. coup d' état nga jeexal mandat war a dem dem mais yow fii ngay gis coup d'état militaire am population bi di jubilé. Hmm. lan moo tax loolu. xam nga su ko defee nag li ci des mooy volet politique bi. Hmm. dina yee yeneen dëkk yi. mais volet économique bi dina xaw a métti parce que vraiment espace CEDEAO bi. Hmm. bon yooyu yëpp dañ koy xoolaat dañu am carte d'identité yu bees. am monnaie bu bees. tout à fait am passeport bu bees. exact. voilà seen i dëkk yooyu bu ñuy ñëw par exemple fu mel ne eh, Sénégal dina xaw a métti ci ñoom. Hmm. parce que bokkatuñ ci espace bi. Hmm. mais ñoom peut-être loolu lépp calculé nañ ko quoi. tout à fait voilà li ci des rek mooy vraiment Afrique hmm. moo war a jóg jël dessin mu amee. exactement. waaw xam nga lu tax. foofu lañ toll. tout à fait waaw foofu lañ toll te vraiment. l' Afrique c' est avenir. moom la nit ñi di wax. te boo demee ba militaire jël réew. population bi di jubilé. absolument ça veut tout dire. exactement voilà mu ngi noonu di ñaan rek vraiment. Mm-hmm. CEDEAO bi nañ ko xoolaat refondé waat ko. absolument foofu laay saluer la mémoire de Kadhafi quoi. Mm-hmm. waaw il est train il était en train de faire un très bon travail. absolument gars yi éliminé ko quoi. absolument intérêt Afrique la doon sàmm gis nga fi mujjee. tout à fait mais nañ gars nañ jël Macky Sall nag vraiment su mënoon def coup de France. Mhm. balaa muy dem. Mhm. jéem a réconcilier ak gars mhm. dina dina solo parce que am na leadership ouest africain bi. absolument gars yi koy may nopp déglu nañ ko. te vraiment bu ci mënoon def benn affaire daal. ba gars ñëwaat. ñu ñuy revenir à de ñu waxtaanaat xool suñu espace dina entrer dans l'histoire parce que wax nga ko espace CDAO, espace de libre échange sur le plan économique mu que lo xamante am impact si dëkk yi donc euh, doon am solo bu baax a baax alors merci beaucoup mesdames et messieurs dégg ngeen mu nekkoon ki nga xamante mooy monsieur Seck wax naa leen suñu chroniqueur maison à chaque fois mu ñëw euh, jàngatal ñu l' essentiel de l' actualité on est au terme pardon de cette émission Seck lan mooy kàddu yu mujj yi. waaw kontaan rek kontaan rek di wax la TPS rek. Hmm. gars yi nañ dem rek abonné ci. Hmm, hmm. man loolu rek laa leen di ñaan. ñu dooleel ñu quoi ñu like aimer partager xam nga. parce que campagne bi moom affaire yu neex yaa ngi ñëw. voilà bu ko defee vraiment mm-hmm. ñu ngi suivre bon ñuy xam ci ci discussion yeeg yooyu. Mm-hmm. kontaan naa aussi échanger ak yow vraiment. Mm-hmm. di la gërëm di la sant. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen ñaanal kenn dal ak jàmm. Mm-hmm. Euh, ami téléspectateurs yéen itam ñu nuyu leen daal leen di ci safoo beeg topp bi moom mi ñu koy ñaanal suñu invité euh, mu gën a am jot ci liggéey bi comme ni mu koy defee saa su di ko ñaanal également lépp loo xamante ne mi ngi koy engagé ci ay projet suñu borom sottil ko parce que aussi lim ñu defal euh, mi ngi koy def avec courage avec volonté sans vraiment tegal ñu benn benn benn benn charte loolu aussi lu am solo ñu ngi koy jaajëfal a baax di leen jaajëfal yéen pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.